Hmm. bismillah kon mbokk yi ñu fàttali na rek ba tey ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci suñu jataayoo tafsirul quran comme ni ñu ko baaxoo defee jamono bu nekk rek ci waxtu wi insha allahu taala ba tey rek kon ñu ngi ci suuratul anam toll ci suñu numéro cinq suñu jataay mujj ñu yemoon ci wamal xayaatu dunia illa laibun wa lahwun wala daarul axira خير للذين يتقون أفلا تعقلون تاي نيو قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون وحكي نحن مملس بروم سبحانه وتعالى دي وحكي بي صلى الله عليه وسلم ديكو حملني خمنا ببعحني تيسنا تيو لول weddi gi ñu lay weddi ba soñoon ñoom ñëpp ñu gëm yëg nañ bu baax ne mbir mi tiis na ci yow xad naa la mu xam nañ bu baax ne innahu naka lay mbir la yaxzunuka dana la tiis bu dee wars nag mooy jàng la yuxzinuka waaw bu dee tafsir bi may tiim nii ak xafs biñ ko bind mooy tax bu dee ko yor téere wars ñaare léeg-léeg mën nay gis ñuy juyoo ci baat yi niñ koy maase xeet yu mel noonu waaye loolu lépp lu ci nekk rek jaar na aw yoon mu ne ko xam nañ bu baax ne la yaxzunuka dana la tiis allazi li nga xam ne na dañ koy wax ñoom ñoo ñu lay weddi mu ne ko waaye nag na nga xam ne fa innahum naka ñoom laa yukazibunaka duñu la weddi walakin zaalimina waaye tooñkat yooyu bi ayaatillahi ci ay sunu borom yi yajhaduuna la ñuy weddi mbiri tiis na ci yow lool tiis lu nga lool weddi gi ñu weddi alquran waaye na nga xam ne rek yow ci sa jëmm sax lañ weddi waaye lii nga andi taxamuñ ko lañu weddi ayaat yi ngay wax muy kàddu yi bàyyi ko ci nun loolu lañu weddi waaye yow moom umpalewuñ la xamoon nañ la ndaka jekk nga nekk al amin moo tax mu ne kon nanga xam ne du sax yow la ñuy weddi waaye nag ayatullahi yii lañuy ñuy weddi te itam maanaam weddi gi ayatullahi sax du weddi jàpp ne maanaam lii daa bàyyi ko ci mbindeef ñoom xam nañu lii romb na mbindeef ndax moo tax mu jëfandikoo juhóot juhóot mooy li ngay weddi fi mu ne xam nga ko danga ko weddi nii rek ci kaw bëgg koo weddi waaye maanaam xam nga ni lii dépassé na doomu aadama moom lu mel ne nam waxe woon ca ba muy wax ca firawna ak juróom-ñeenti kimtaan ya mu leen andiloon mu ne wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum te loolu mooy loo xam ne danga koo weddi nii waaye ci sa xol sa xol nangu na ko xam ne lii romb na nit am nga ci certitude ci ne lii nii romb na nit ñoom xam nañ bu baax ne li Muhammad di wax loolu amrun ilaahi la waaye du mbirum doomu aadama wastayqanatha loolu mooy yàqin kon xam nañ bu baax ne lii moom ci yàlla rek la bàyyi ko te loolu daa bari lu ko firndeel ndax bu masaan jàng guddi al bu masaan di jàng alquran ci guddi gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te daan ko biral di ko jàng ca kaw daan na leen egg ci jaral leen ñu jóg guddi gi topp guddi gi ñëw ba jege dëkkuwaayam ngir di déglu am njàngam loolu dal na leen ay yoon ku mel ne Abu Sufyaan ak Abu Jahlin ak ku ñuy wax Axnas ibnu Shurayq ñoom ñett ñooñu daje nañ fa ñett yoon lu ci nekk la leen fa yóbbu mooy déglu alquran ji jàng kon xamoon nañ ne ñoom li muy wax leneen la yoonu njëkk yi biñ fa dajee ah, ñu waxante dëgg ko ne xam ne la ko la ko fa andi fa andi moroomam kàddu yi muy wax lañ dun déglu dañoo yeddante na ah bu ñu dalati nañ ndax ginnaaw ñun ñoo koy weddi di ko weddi lu nit ñi suñ dee yolliku ci guddi gi di ko déglu kat bu ñu yëgee dootuñ ko mën a weddiloo kenn ñu ne nañ toog bañ jàppee ne dañ toog ba dem kenn ku ne toog kenn ku ne da nga am xalaatum ni man daal mënuma koo ñàkk a déglu te comme ñoom wax nañ ba xam naa diw ak diw moom danañ toog man moom naa yollikuwaat dem di ko diglu ndax lii moom mënuma koo ñàkk a fekk kenn ku ne lim fas moom la moroomam fas maanaam biñ ànd waxante ñoom ñetti ne nañ toog kenn ku ne ba nga demee si kër da ne ah ñaari ñeede xam naa moom danañ jëfee li ñu waxante danañ toog waaye man mënumaa toog lii moom faaw ma dem déglu ko ah lii yéeme na fekk daa di delloo fekk yow li ni nga def moom la sa morom def ba tax ñoom ñett ñëpp ñu dajawaat fa yoonu ñaareel daal di yeddante waat ne waaye lii ëpp naa def nañ toog ah, lii kat bu siiwee du jëm insisté dañu ne nañ toog waaye fi ne biñ nee nañ toog it fi ne dajawaat nañ fa yoonu ñetteel waaw kon xam nga lii moom lii Muhammad di wax sallallahu alayhi wa sallam laneen la waaw ci yoonu ñetteel lañ door a lañ toog nag waaw waaw al axnas ibnu shariq nee na moom bi xëyee yoonu ñetteel ba ñu wax ne nañ toog ba kenn ko ne wax ne moom dootoo fa dellu moom bi ñu xëyee nee na man daal di jël sama yet doxantu seeti Abu Sufyaan ba ma fa jógee ma dem ci Abu Jahlin nee na ci Abu Sufyaan la njëkk a dem fekk ko këram ne ko ah yaa Aba Ansala xan ra'yuka fi ma samixta min Muhammadin dama lay laaj lan mooy sa xalaat ci li li nga dégg Muhammad di ko wax Abu Sufyaan ne ko yaa Aba Sanlaba أخنس لنا يا أبا سحلبا والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها نكو دال أخنس بولا نبو دال dégg naa ci لو waxam خمناكو خم ne xam naa dégg naa ci kàddu yoo xam ne xam ma ko xam ma waaw Axnas waat ne ko giñ naa ci li may jaamu ne li la dala ma dal man mii looloo ma dal maanaam man am na ci loolu bu ma ko déggee danaa ko xam xam liñ jubloo wax waaye da ca am yoo xam ne baat yoo xam ne bu ma ko déggee du xam sax lu muy tekki du xam it luñ ci jublu waaw fi loolu la waxante ñoom ñaar kon xam nga mbir mi yéem na leen mu daat fay jóge moom Axnas dem seeti Abu Jahlin Abu jahli nag mom xam nga mom daam Sadji la go xam mom dafa bañ yonent bi mu jegi dayo wa mo tax bam fa demé ni Abu sufyan def ak mom sax fekku ci Abu jahli wa mom bam demé nuyo ah ñu ubbil ko mu daal di tàbbi ci bir mu ne ko ya abal hakam Abu jahli lay wax maa ra'yuka fii maa samixta min muhammadin abul xakam lan mooy sa gis-gis ci li nga dégg Mohamed di ko jàng noonu abul xakam muy abu jahlin daal di moom ne ko ay maasa samixtu lu may dégg lu ma dégg lan la man li ma fi yëm man fii dara dama fay yëm lan laa dégg ne ko nun tanazaana naxnu wa banu abdul manaaf asharaf ñun xam nga ne ñun ak banu abdul manaaf dañuy jongante ci tedd nga bëgguñu ñu dominer ñu ci dara bu ñuy leel ujaa ji ci aj gi ñun ñu ngi koy def bu ñuy màndal nit ñi ñu koy def bu ñu leen di daal loo ñuy def ñu ngi koy def waaw ëppale wuñ ci dara kon buñ bëggee xëy jékki-jékki rek naan am nañ ci suñ biir yonente boo xam ne day am wax yu bu koy dikkale asamaan ah te ñun loolu amuñ ko ah, loolu defe nga ne mën naa nekk xam nga ne duma ko gëm kët ah nga xam ne moom noonu la ko waxee ne ko duñ fi nekk ni xëy rek ñoom ñu nekk fi naan minna nabiyun yatihi alwahyu min asama fa mata nudriku hasihi wallahu la wallahi la numinu bihi abadan wala nusaddiquhu waaw du ma ko gëm du ma ko dëggal abadan waaw boole ko xaw a tàng jër mu daal di jóg dem nga gis ne kon fi mu ne abo Jahlin abo Sufyaan sax a ko tane moom dafa masa bañ yonent bi bañal goo xam ne jékki na dayo moo tax booy xool Abu Sufyaan moo mujj tuub moom ci ci mujjug mujj na tuub ci fatu mag eggoon na ci képp kum gis sax ngay xaw a jéng jëm ci yonent bi dara rek daanaka day daal sa kaw ngir nga deltu ginnaaw boo xoolee ku mel ni Alwaliid ibnul Muxiira nga xam ne ci sangi Xuraysi ni la bokkoon am na bis mu dem ci Abu Bakrin Siddiq abubakar daal di koy jàngal dara ci alquran mu yéem ko lool ne yaa xajaban li ma yaqul ibnu abi kabs fekk yonent bi la ci jiblu ne ah kimtaan la de lii Muhammad di wax de kimtaan la waaw daane wallahi xam naa ne lii du ay way dug njabar du mbirum jinne itam walit jóge fa dem ci yonent bi salaa sallam bam demee yonent bi salaa sallam tam jàng alquran ci kanamam mu dégg مري يمشي لول من والله لقد سمعت لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه للطلاوه وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه لأن وما يقول هذا بصر فبلغ ذلك خريس نبي صلى الله عليه وسلم جانجي تشمم القرآن بيرمي يمي تشمم بيمجيني دمجي إني تمليل لين وخ ne leen ah man de dégg naa ci Mouhamed muy wax loo xam ne du waxi nit de du waxi nit du waxi jinne itam te wax ja neex na lool bu doon garaba ma ne am na meññeent de lu am cafka la te kii ma gis mbiram ci kaw la jëm léegi nag xorey sin daal di gis ne comme Walid ibnu Muxira kilifa la te mi ngi tàmbalee am position bi ni wóorut ci lañ ko waxee Abu Jalin ne ko walit daal li muy wax moom daanaka xaw naa jéng jëm ci sawaay de boo jëlee ne ëpp naa def la walit di bis bu dugg bu gëmee Muhammad ma bay woo nga xam ne xoree sin gépp danañ ko fekk ci loolu daane waaye nag bàyyi leen maa moom maa ko mën a lijjanti xam naa fi ma koy jaar nga xam ne daa jóg daal di dem seeti ko seeti Walid ibnu Muxayra daal di dem dugg këram mel ni ko xaw a ànd ak njàqare ku tiis ba kanamam soppi ko ba bi mu egsee sax Walid ibn Mughira mi ngi ko wax loolu naan ko maa li araaka xazinan waa tey ni ma la gisee sa xar kanam bi soppi ko na de lu tax waral lii maa ngi ko wa maa li laa axzanu man kay mënu maa ñàkk mel ni da ko waayoo góor gi ah yëngale xew maa ko lum doon mu ne man kat maa yëg ne maanaam mbokk yi ñëpp ñi ngi dajal alal fi ne ngir ngir ngir ngir dimbali la ko ñi ngi dajale sarax waaw mbokk yëpp ngi dajale sarax ngir dimbali la ku ne ya ngay wut lu mu yor di joxe ñuy dajale alal jiñ la dimbile mu ne ko ah man luñ may dimbile mu ne ko ah, ñom kay mom nee nañ dañoo dégg ne yaa ngay dem ci mohammed ak ak bakkar di di fa di fa wut loy am ba tax na mbokk yépp ngi dajale alal ngir dimbali la ngir bu dee alal dong tax ngay def sa yi ngay def nga man koo bàyyi. dañoo jàpp ne maanaam xanaa ak magalay bëgg a jàpp xalaa sinnika wa yazhamuna annaka zayyanta kalaama muhammadin nee na yow yaa ngay dem ci Muhammad ak di diglooy waxam ak di ko rafetlu waaw moo tax daal ñu ngi lay dimbali mu ne ah mu ne man man ku may dimbali kuy dajal al ngir dimbali ma man xorey sin gépp xam nañ ne kenn ëpp ma fi alal man lan laa fay wuti ngir alal man dem ba fi ngir alal bañ may dimbali di mu ne ko ah li gën a wóor daal fi mu ne nii mooy bayee ba nga sensé say kàddu bay ba nga jóg waxaat ci moom loo xam ne dana firndeel saw nit ne yow ku weddi li muy wax nga faqul fiihi qawlan yaalamu qawmaka annaka munkirun li maa qaal wa annaka kaarihun lahu lii daal moom nga mën a def nit ñi seen xel dal il faut nga jóg waxaat ci moom lu joonu ngir ñu xam ne rejoindre ko waaye fi ne nii moom nit bëgg tàmbalee jàpp ne dangaa bëgg a jëm ci moom te kilifa nga nag mu ne ko ah man fa maa lan laay wax والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني من أمو تكن نتيين كما غنى خم والوي بدون أي راجة سكي قصيداك أي ويرك كن غنى مغو خمتين تمن خمنا ويرن ليمي وق دو أي واي دو واحي جنة يتم اه دو واحي جنة من أكو دال مو منتنياك نغا سانس فرشيون تفهم نني أجي دفا جبسي تكنام توتي دك بدي فيس دل كونيت أك أجكدي te dañoo bëgg fexe ba génnee benn slogan boo xam ne moom lañuy siiwal ci aj gi te bëgguñ cee juyoo bëgguñu mbooloo mi ñëw buñ koy jabalise ñi naan njabarkat la ñi naan euh, shahir la wax yi di tàqalikoo te te te wax yi bu bu bokkul rek bu yàggee ñi ñuy waxal mën nañoo bañ a gëm li ñuy wax waaw fi ne dañoo bëgg ñun ñëpp ñu maase xool lenn loo xam ne moom lañ koy tuumaal bu aj gi ñëwee loolu la ñuy siiwal ci dëkk bi fu ñu jaar di ko wax ngir kenn bañ koo gëm ah walit ne ko léegi kon loolu moom danga may may ma xalaat ci loolu danaa ci xalaat ci la walit xalaate nag ñu jàppaat ab bis daje ca daaru nadwa di xool nag ban terme lañ war a génne ci aj gi balaa nit ñi ñëw pour teel a siiwal mbirum Muhammad wan nit ñi de daal du nit kuñ war a topp waaw biñ xalaatee am ñu génne xalaatu pour wax ne majnun la ku wéri di wéri xel la am ñu ne nañ wax ne shaa'ir la am ñu ne nañ wax ne kaahin la waaye xalaat yooyu yëpp bu ñu indi rek ñu xool am lu ko décortiquer pour wane ne bii nii buñ ko waxee du jàll Walid ibn Mughira nag bi mu xalaatee déglu seeni xalaat ba noppi la ne man gis naa ne li gën a jàppandi ci ñu wax ko mooy ñu wax ne njabarkat la parce que yi ngeen wax ni yëpp moom buñ ko waxee du jàll ndax yenuwul maanaa ci ku mel ne moom ku xam-xam ne yii ñuy wax yëpp du ko du mañ noon du kaahin du shaahir du mañ noon du du shaahir poète buy waxi bayit ak yooyu rek waaye daal comme moom mi ngi tàqale nit ak doomam ak nit ak soxnaam ak nit ak baayam nga xam ne ñi ko gëm ñu bari ñu ngi bàyyi seeni mbokk daal li gën a nuru dëgg ci buñ ko waxee mooy ñu wax ne njabarkat la te sax xam naa ne li muy wax du njabar waaye loolu moo gën a nuru dëgg pour ñu wax ko ndax ak njabar moo daan faral di def lu mel noonu di tàqali aw nit kon nañ wax ne daal ak njabarkat la ñu daal di ànd ci loolu daane léegi daal aj gi bu ñëwee siiwal ne Mouhamed am njabarkat la fu njaar jaar nañuy wax loolu ngir nit ñi mën ko wattandiku mën koo daw kenn bañ koo gëm moom la alxuraan di nettali ci bim naan innahu fakkara wa dara fa qutila kay kayfa qaddara suma xottila kayfa qaddara suma nasara suma abasa wa basara suma adbara wastakbara jooju fa qaala in haza illa sihrun yusar gis nga loolu lañ mujj trouvé ne nañ wax ne njabarkat la noonu lañ def nag ci jamonoy aj googu dañ doon siiwal naan Mohamed moomu nekk ci dëkk bi ne ñëpp xam ne njabarkat la boo xam ne déglu ko wóorut nga xam ne am na ñoo xam ne ci biir mbooloo sax dañuy sakk seen nopp dañuy jël wëtteen saañ seen nopp ngir euh, xamuñ fu ñuy dégg kàddoom te tiit nañ ci liñ wax jàpp nañ ne ku ko dégg rek njabar gi jàpp la waaye mujj nañ gis ne loolu jëriñu dara ñi nga xam ne am nañ xel teewul ñu xam ne ñoom yooyu du tee ñoom danañ danañ ko déglu li muy wax ba yonoo maanaa ci ñoom ñu xam ba yonuwul maanaa ñu xam teewul am na ñu ko doon daw waaye am na ñoo xam ne taxul ñu daw teewul mbir yi dafa gën di avancer rek bi nee ba nga xam ne Hamza tuub na nag dugg ci lislaam li julli ñi di gën a am courage di gën a am fit yëf di yokk dem nañ ba yàgg ku ñuy wax euh, Utbatu na Rabia daal di eh, wax ne man daal dama bëgg ngeen yabal ma ma dem def ak moom mu faawada négocier ak moom ci ay poñ yoo xam ne amaana mu fekk siñ ci ngir yu mën a déggoo moom mu mën a teg mbir ci suuf gaa yi ne ko a ah, baax na kon daal di koy yebal ne ko demal nga waxtaan ak moom te maanaam Utbatu bnu moom it moom itam ci sangi xore si la bokkoon ci kilifa yi mu demee gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama soxla woon ngir ñëw waxtaan ay proposition yu ma indi ngir tegal la ko ngir ñu xool a ah, yonent bi ne ko maa ngi lay déglu mu daal di koy gaaral ay mbiram ne ko daal ñun dañoo gis ne yëfi daal war nañoo mën a déggoo ay mbokk lañ war nañoo mën a déggoo dañoo bëggoon daal su fekkee yow ah da ngay koo xam ne nguur nga soxla ñun mën nañ laa def sax buur loolu dara fekkee da ngay koo xam ne alal nga soxla mën nañoo dajale suñu alal jox la waaw su fekkee day def di mbir mi moom lu lay dikkale di mbirum jinde moo xam ne ak wéradi la ba tey mën nañ cee jàpp mën nañoo dajale suñu alal faj la waaw ñun daal xalaat yi lañ amoon wax waxam ju rafet defe na yonent bi <laughs> da koy fekk ci li mu wax bi mu waxee ba eggal yonent bi sallallahu ne ko aw xat faraxta yaa abal walid ndax pare nga mu ne ko waaw na pare na mu ne ko nag fas naa min nii maanaam déglu yonent bi salaa salaam lam ko tontu lépp alxuraan la nekkul di wax ak moom ci yeneen dafa tàmbali rek suuratu fusilat muy xaamim tanzilu min arrahmani arrahim kitaabun fusilat ayaatuhu quraanan arabiyan li qawmi yaalamuun bashiran wa nadiran fa arada fa aksa fa arada aksaruhum fa hum laa yasmaun waaw wa qaalu qulubuna fi akinatin mimma tad'unana ilayhi wa fi aazanina waqrun noonu la ko toppee am na ñu ne jàng na ba ci sujjuut ba comme moom xutbatu ibn rabiha xam na dara ci li yonente bi wax alquran yi da nga gis ne li yonente bi wax ak moom lépp réponse la saar woowu soo ci duggee da ngay xam ne mi ngi koy tontu wan na ko ne lii tanzilu min arrahmani arrahim la man lii may wax wax li wax yàlla la ju bàyyi ci yàlla mi nga xam ne rahman la di rahim mu nekk kitaabun fusilat ayatuhu maanaam di téere boo xam ne fasuwut lool lool ay ay baat ay aayaatam luñ mën a xam la ndax quraanan arabiyan la làkku arab la waaw li may wax ku dégg war na koo mën a xam te weesuwu rek bashiran wa nadiran te mooy maanaam ñi nga xam ne gëm nañ ñu ngi leen di bëggal ci ëllëg suñ borom dugal leen aljana ñi wedd yàlla ñu ngi leen di xub ngir ñu deltu ginnaaw waaye yéen boo xoolee li ëpp ci yéen ba léegi rek nanguwu leen dégg waaye fi mu nekk nii maanaam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee moom ba pare mbir mi moom it def koo dugg lool jeexital ci moom lool moom Utbatu bnu Rabia ba bi mu delluwaatee ci ay nitam sax biñ ko gisee rek dañoo tàmbalaan ah sa waaye mii de moom ni mu demee woon ak ni mu dikkee bokkuñu xar kana moom soppiku soppiku na lool de waaw laqad jaakum abul walid bi xayril wajhi alladi dahaba bihi waaye fa lama jalasa ilayhim qaalu maa waraaka yaa abal walid waaw bi mu ñëwee toog ñu ne ko ah yow sëñ bi yow loo loo di loo andi kat daa mel ni nga demee woon ak ni nga dikk daa wuute lool sa xar kanam daa soppiku lool mu leen waaw waraa yi anni samitu xawlan wallahi ma samitu bi mislihi qattu wallahi ma huwa bi shi'r du ay way de wala bi sixir du njabar de wala bil kahana du koy xamtu de déedéet soo ay mi li muy wax laneen la man daal li ma li ma li ma leen di proposé fi mu ne nii yéen waa xuraysin te bëgg ngeen topp ma ci mooy sawaay nañ ko bàyyeeg mbiram waaw nañ bàyyi nañ ko bàyyeeg mbiram ñaar rek mën am ñun buñ ko bàyyee arab yi su su arab yi weddi nañ ko niñ ko weddee buñ xeexeek moom buñ ko buñ buñ ko éliminer loolu noppal ñu fajal nañ suñu aaju ñu tàqalikook moom su fekkee daa am ndam ci lii muy defit bu ëllëgee ndam li suñ ndama rek ndax ñun ñooy ay mbokkam kenn duñ ci ëpp daraja man daal lii waaye nag mu wax loolu rek gars yi tàmbali koo ree naan ko cey sa waaye bi dugg ko rek sa waaye yow ndekkati njaboot ak Mouhamed gi mi ngi lay dugg moom mi daa <laughs> moom it mi daa tàmbalee bëgg am kersa ci loolu tàmbalee bëgg rikkili naan déet man loolu nag sama xalaata rek ab xalaat la rek kon lii lépp li gis rek mooy ñoom xamoon nañ ne lii muy indi wax yàlla rek la mën a doon moo tax suñu borom ne ko xam nañ ne mbir yi tiis na ci yow lool ci wedd gi ñu lay weddi waaye na xam ne yow fenn loowuñu la waaye ayatullahi la ñuy weddi te weddik maanaam làmmiñ rek la waaye xam nañ ci seen xol na mbirum asamaan la suñ borom jàll yit di ko xooloo ci yonent yi nga xam ne jiitu woon na leen jiitu woon nañ ko mu yónni leen te ñu weddi woon leen ba eggoon ci ñenn ñi sax di leen lor waaye fa ñu mujj mooy ndimbalul yàlla dikkal leen ne ko wala xadd kuzibat wér na ne weddi woon nañ rusulun ay yonente min xablika ci lu la jiitu waaye fa sabaroo dañoo muñoon rek ala ma ca la nga xam ne ku ziboo noonu doon nañ leen ko fenloo di leen weddi eggoon nañ ci tam bu uusoo te loree foon na leen mooy eggoon nañ ci tam di leen lor lu coono bu ne yonente yi daj nañ ko waaye dañoo muñ xataa ataahum ba dikkal leen nasru naa suñu ndimbal ñun yàlla suñu ndimbal ñoo leen ko digte dana ñëw ndax wala mu baddale li kalimaatillaahi wala mu baddale déet muy lu ñuy soppi mukk li kalimaatillaahi ñeel kàddu yi suñ borom yi leen yàlla wax gi wax ci ay baat yu leer digg ndimbalam ci ñim yónni ak ñi ko gëm loolu du soppiku mukk te yàlla moo ne euh, la kat kataballaahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyun aziz yàlla moo ne dogal na bind ne dana nat moom ak ñi nga xam ne ñooy ay yonenteem yi mu yónni waaw wa inna jundanaa lahumul gaalibun la wax faw yàlla ñi ñi mu ñooy féete kaw ñooy nat lu metti metti rek ndawul yàlla mooy mujj am ndam ca kaw ña ko weddi kon na nga dalal sa xel bu baax noonu la sun borom daanele ngir dalal xelam mu xool ci ñi ko jiitu woon waaw wala xad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahum al mansurun wa inna jundana lahum al qalibun ci safati waaw tollu nañ fi ñu war a yëkkatee jataay bi insha allahu taala danañ ci